mbokk xarit yi yéen ñi safoo di topp ay programme mu Leral TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax j'espère que yéen ñëpp yéen a ngi ci jàmm alors comme toujours seen émission euh, comme euh, politique di dikk ak yéen di waxtaanee lépp lu jëm ci actualité euh, politique nationale bien sûr waxtaanee lépp li nga xamante ne rek jamono ji mu ngi am ci biir réew mi ñu ci am toujours mbégte ak contentement di leen ci dalalaat bu baax a baax alors ni ki tey nag dañu dalal benn invité boo xamante ni moom itam ràññee nañu ko bu baax a baax ci làngu politique bi waaye itam solo bi nga xamante ni euh, am na ko ci fi nga xamante ni euh, fa la bokk muy Moussa Sow nekk coordonnateur euh, COJER COJER convergence des républicains ñoom ñi nga xamante ni ab bànqaas la bokk ci alliance pour la république ni tey nag moom la ñu daal di dalal ci suñu plateau ma koy nuyu bu baax a baax monsieur Sow. jërëjëf Mamy Mbengue maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñi ma fekk ci kër gi. Mm-hmm. di nuyu également ñi ñuy déglu di ñu seetaan jamono ji. Euh, di ñaan yàlla rek waxtaan bi nga xamante ne dañ leen koy proposer léegi mu amal leen njariñ lool. Mhm. incha allah ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax ci ni nga wuysee euh, woote bi alors waxtaan bi monsieur Sow dama bëgg ñu door ko ci événement yi nga xamante ni moo mujjee am euh, ci langue politique bi rawatina ci seen wàll ak tànneef bi nga xamante ni le président Macky Sall dina koy def porter son choix ci ki nga xamante ni mooy amadu Ba yow sax su ma juumulee bokkoon nga ci ñi doon wax ni amadu Ba moom mooy profil bi gën ci li nga xamante ni mooy. coalition bi alors pourquoi choix wu Amadou Ba justement alors merci beaucoup Mami mhm. ci question bu am am solo boobu mhm. euh, tout d'abord dañuy remercier ki nga xamante ne mooy le président Macky Sall mhm. parce que nag wax dëgg yàlla ji na sénégalais yi ngor wax dëgg yàlla euh, nekk na royukaay ci mim réew ak partout dans le monde waxuma la rek Afrique mais partout dans le monde euh, ñoo ngi koy rendre un hommage un vibrant hommage démb rek il a fait un discours mémorable Euh, lors de l'assemblée 78e assemblée générale donc euh, mm-hmm. des Nations Unies ci États-Unis mm-hmm. euh, di ko rendre un vibrant hommage parce que bu leen fàtte ne président Macky Sall mënoon na yootu li nga xamante ne mooy beneen quinquennat parce que am na ci droit mm-hmm. mais dafa toog ba mu neex ko mu ne wax dëgg yàlla comme que newoon na ne du wut beneen mandat même bu ci amee droit day bàyyi donc 2024 du bokk donc ci biir coalition benn Bokk Yaakaar nag il fallait trouver un candidat désigner quelqu'un boo xamante ne mooy teewal tout la coalition benn Bokk Yaakaar ku ne coalition Benno Bokk Yaakaar nag du rek l'Alliance pour la République du rek euh, parti bi nga xamante ne moom la président de la République créé woon en 2008 hmm. en 38 mois seulement d'opposition wala en 3 ans seulement mu jël réew mi en 2012 mais APR da ko bokk ak AFP bokk ak euh, PS bokk ak yeneen parti yu mag a mag yu ñu ràññee ci hmm. langue politique yi hmm. président la République nag diisoo ak ñëpp waxtaan ak APR waxtaan ak leader yi waxtaan ak kilifa coalition bi yëpp cela veut que jékki-jékkiwul rek tànn kenn mais dafa waxtaan ak ñëpp ba yàlla def tànneef bi dal ci kenn ku tudd Amadou Ba Amadou Ba nag wax dëgg yàlla ci biir Sénégal boo laajtee nit ñi danañ wax ne ne profil bu baax la euh, mënoon na dal également tànneef boobu mënoon na dal ci keneen ci ñi nga xamante yootu woon nañ ngir nekk. suñu suñu suñu suñu candidat en 2024 muy Boun Abdallah Dionne muy ali Ngouille Ndiaye muy euh, Mame Boye Diao muy ñeneen ak ñeneen yàlla defa dogal nag mu dal ci Amadou Ba mm-hmm. te ñun dañ toogoon en secrétariat exécutif national ñu ne président de la république jox nañ la euh, carte blanche carte blanche mooy président loo tànn ànd nañ ci ñun ndaw ñi ñu wax ko femmes yi wax ko enseignants yi wax ko euh, tout le secrétariat exécutif amul kenn ku ko ku ci àndul woon ñépp ko joxoon carte blanche ñu ne koo tànn ku ne hmm. ànd nañ ci parce que jàpp nañ ne yaa ñu gën a xam jàpp nañ ne kenn ku nekk ci ñun xam nga lu mu mën ak lu mu mënul kenn ku nekk ci ñun liggéey nga ak moom xam nga euh, li nga xamante ne fa la mën-mënam yam président de la république yàlla def après avoir consulté tout le monde hmm. au-delà même di parti dans la coalition mu tànn Amadou Ba donc la logique voudrait que ñun ñëpp ñu ànd ci tànn boobu bu ko defee deux mille vingt 2024 ñu mën a gañewaat réew mi continuer li nga xamante ne mooy liggéeyam moom président Macky Sall. Mm. tànneef boobu tànneefu Amadou Ba boobu justement moom laa bëgg ñu taxaw un peu pourquoi Amadou Ba lan la euh, wan la président Macky Sall wala lan la fi def loo xamante ni moom la ñu gën a mën a euh, propulser aujourd'hui pour mu jiite seen coalition bi. waaw xam nga question boobu da doon neex fekk président de la république moo toog fii nga laaj ko ko. Mhm. parce que nekkuma ci biir boppam mais xam naa ne war ngeen ci am affaire si war a xam. mais xam naa ne Amadou Ba profil bu baax la loolu naatable wuñ ko. Mhm. parce que nag ci lan profil bu baax ci lan ci expérience bii ci mhm. état parce que nekk na fi ministre plusieurs fois. nekk na également ci état ci administration depuis fort longtemps donc nekk na kenn koo xamante ne mën na. jiitee li nga xamante ne mooy la coalition te am nañ ci yaakaar d'autant plus mm. que la coalition benn Bokk Yaakaar dafa nekk coalition bu solide coalition boo xamante ne euh, l'histoire di Sénégal wane na ne coalition bu gën a yàgg la bu gën a yàgg la depuis 2012 ba léegi coalition bi euh, du def lu dul màgg c'est-à-dire yeneen parti ñoo ñëw fekk si ko mais amul yenn benn parti bu jógee ci coalition bi génn maintenant nag dafa am ñoo xamante ne peut-être d'accord guñu ku mel ne le président di conseil économique social et environnemental mm-hmm. suñu camarade mm-hmm. suñu frère suñu mag mm-hmm. Abdoulaye Daouda Diallo discuter na waxtaan na ak président Macky Sall ba finalement ñu trouver consensus consensus boobu ne rien d'autre que moom nangu na appelu président de la république fekk si Amadou Ba fekk si choix président de la république bu ko defee ñun ñëpp ñu boole suñu doolee bu ko ñu mën a gagner euh, gagner gagner élection yii di ñëw maintenant nag moom def na ñaar ñoo tax mu accepté mm. bi ci njëkk digganteem ak président de la république c'est des relations yu yu yu yu la c'est des relation yu solides bu bul yàq relation yooyu ça c'est un deuxièmement aussi réew mi da koo soxal nekkul woon ambition personnelle mais ambition ambition wu réew mi la woon ambition wu Euh, c'est-à-dire euh, bëggoon am jiite coalition bi ba nekk président nee na du ambition am moom kese mais ambition bu ma amaloon Sénégalais yi yàlla def na ne nee na président président Macky Sall ma ma ma daaneel ma daaneel président Macky non seulement seen relation seen diggante ñoom mais aussi réew mi buggul jox chance ñi nga xamante ne ñooy opposition bi bu ko defee ñu am prox ndool mm. am dara ci ci ci réew mi parce que c'est des gens yoo xam ne peut-être mën nañu wax ne amuñu expérience yu jiite état te loolu fi ñu toll nii ci àdduna bi ñu toll ak sous-région bi ñu toll wóoru nga joxam réew koo xam ne attanu ko mm. suñu réew mën na dugg ci guuta moo waral aujourd'hui mm. le président du conseil économique social et environnemental ñëw fekk si choix wu président Macky ñoo ngi ñaan tamit ña ca des ku mel ne le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëpp xam nañ ne responsable bu mag la am na dayoo ñoo ngi koy ñaan mu ñëw répondre à l' appel du président de la république bu ko defee ñun ñëpp ñu boolee suñ doolee parce que nag xeebuñu xeebuñu kenn te li gën a bon ci politique mm. mooy nit ki dem ñu ne ah na dem amul doole et cetera ñu sofantal ko loolu baaxul parce que nit ki bu demee même bu dee ay mbokkam dina yóbbaale même bu dee ñaari nit dina ko yóbbaale loolu tax ñuy ñaan responsable yu màgg yooyu yàgg ak président de la république non seulement ñu bañ a yàq seen relation ak président de la république mais aussi et surtout ñu gën a mesurer enjeu yi ñu nekk ni ñu ñëw fekk si ki nga xamante ne mooy Amadou Ba choix bi mënoon na dal ci ñoom mais yàlla defa dogal ci Amadou Ba la dal donc nañ ñëw fekk si Amadou Ba bu ko defee ñu ñëpp ñu wëyal liggéey bi mm. perpétuer l'œuvre du président de la République continuer li nga xamante ne mooy le Sénégal émergent parce que nag boobu léegi ñoo ngi gis li nga xamante ne mooy ay ngëneel ci plan Sénégal émergent les fruits commence à tomber ñëpp gis nañ le bilan di président de la République qui mm. est très reluisant mm. ñëpp gis nañ liggéey bi président de la République def noone aussi laay woowee ku mel ne Euh, Boun Abdallah Dionne ñëpp xam nañ ne il a mm. prouvé bi mu nekkee premier ministre gis nañ ne kat la gis nañ ne jàmbaar la mm. donc noonu lañ koy wooye moom itam mu ñëw fekk si li nga xamante ne mooy tànneef président de la république kii di kii di kii di kii di ah, ah. aussi euh, Mame Boye Diao la même chose je fais mm. un appel à un mu ñëw fekk si li nga xamante ne mooy le choix du président de la république parmi tant d'autres c'est am na ñeneen ñoo xamante ne war ambition politique juste par couleur mm-hmm. loolu nga bëgg su ma comprendre bu baax li nga wax ñu teel seen ay ambition politique juste par colère ci ki nga xamante ne mooy président Macky Sall. au delà au delà de colère. Hmm. mais dafa nekk socle muy le plan Sénégal émergent xam nga. musuñu am un développement qui est phasé ci avènement au président de la République lañ ko am. Hmm. développement phasé mooy un plan Sénégal émergent boo xamante ne chaque cinq ans dañuy évaluer xool fi ñu toll li ñu am ak li ñu amul force et faiblesse. mais bu njëkk ba li ñu doon gis mooy des stratégies de réduction de la pauvreté xam nga loolu ku amul ambition rek mooy mooy tëralee noonu aw développement wu réew. Mm. mais fu mu toll nii plan yu leer nañ lañ teg muy le plan Sénégal émergent bu ngeen xoolee sax bi ñu nekkee opposition yoonu yokkute la ñu amoon comme programme bi ñëwee au pouvoir boole kook li ñu am expérience ci li ñu am en terme d' expérience bi ñu nekkee opposition programme yoonu yokkute boole kook expérience bi ñu am pouvoir réalité pouvoir. ñu dëxëñ lépp boole ko euh, tëgg li nga xamante ne mooy PSE plan Sénégal émergent booboog léegi wax dëgg yàlla mm. le PSE entrain en train de faire des résultats résultat yooyu nag la ñu bëggut a wàcc moo waral mm. œuvre président Macky Sall ñëpp war a boole seen doole pour perpétuer ko pour eggali ko TER bii di daw nii c'est grâce au plan Sénégal émergent te terre bii nii wax dëgg yàlla tey ji fi mu toll nii ñun ñëpp ñoo ko bokk sénégalais yëpp yaa ko bokk buñ ko arrêté woon pendant deux heures de temps mais c'est des problème c'est des problèmes parce que fi mu toll ñu koy jël bari nañ lool nit ñi dañuy ran guddi dañuy ran ngoon dañuy ran suba pour jàng pour euh, liggéey pour jàngi pour dox doxi seeni soxla mais buñ ko arrêté woon léegi ñu ne nañuy jëlaat car rapide yeeg njaganjaay yeeg vous imaginez ce qui va se passer à Dakar. mais da nekk di def mais euh, imaginez vous par exemple si le président Macky Sall nga nekk di di di ñëw nii mais un peu euh, peut-être tout à l'heure dinañ ci dikkaat bu baax a baax. Mm-hmm. mais bëgg naa ñu taxaw également ci profil yi nga xamante ni bokkoon nañ ci ñi nga xamante ñoom la président Moustapha Niass doon étudier waat seen ab euh, dossier bu ñu ko mënee waxee noonu ci li nga xamante ni mooy ñu war a mën a jiite coalition bi gis nañ Boun Abdallah Dionne wax nga ko léegi moom itam am na peut-être liggéey bu am solo boo xamante ni jot na koo def ADD kon na ci ñi nga xamante ni ñu ngi ko doon euh, déglu comme quoi que ni moom itam yelloo woon na jiite li nga xamante ni mooy coalition bi mais aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont de moins que euh, li nga xamante ni mooy euh, Amadou Ba ba kenn tànnu leen. waaw damay damay baamtuwaat rek li ma waxoon. Mm-hmm. parce que nee naa la tànneef bi. Mm-hmm. mënoon na dal ci ku ne parce que le président de la république nag c'est quelqu'un boo mm-hmm. xamante ne il est très démocrate c'est quelqu'un qui est transparent également parce que def ne. képp koo xamante ne bëgg na ko remplacer ci biir coalition bi na ko ko wax bu ko defee ñu boole ko ci candidature yi képp ku amoon ambition présidentielle yëkkati na baaraamam ñu bind ko maintenant nag tànneef bi ñu delloo ko ki nga xamante ne mooy président Macky Sall ñoom ñëpp am nañu profilu président ñoom ñëpp ce sont des princes présidentiables mais yàlla dafa dogal tànneef bi ci Amadou Ba la dal bu danool dalool ci keneen aussi on demandera gentiment et poliment euh, au ministre Amadou Ba de rejoindre bu fekkente ne si jamais il décidait de partir seul mm-hmm. mais tey suñu suñu candidat Amadou Ba la te dañuy ñaan mm-hmm. doole ji ñu amoon 2012 ba nëga ni ñu bañ ko perte parce que waruñu fàtte ne quand on uni bu ñu boolee suñu doole dañuy gagné kenn mënuñu résister mais bu fekkente ne xaw nañu féewaloo tuuti rek mm-hmm. mën nañu indil ay jafe-jafe moo waral nag ñuy woote ñëpp ñu booloo pour comme ñu mën a gagner élection yi en 2024 parce que élection locale yi jàll xawoon nañu faxastalu ñëpp xam nañ ko am na ay grande villes yoo xam ne on les avait perdu ah c'est ça la réalité mm-hmm. élection législative ñëw amoon nañ naa majorité à l'Assemblée nationale mais malheureusement c'était une majorité étriquée majorité bu ndaw la bu faible léegi nag imaginez-vous bu ñu féewaloowee kon on court tous les risques su boobaa moo waral nag euh, bi sax commencé na monsieur saw ndax gis nañ euh, kenn ku nekk yaa ngi commencé ber sa daara wala ngay xool ay porox ndoll yoo xamante ni di nga gën a fësal sa bopp également mais kenn hmm. démissionné gul ci coalition benn Bokk Yaakaar mais am kii ay affaire ci biir de. xam naa lépp loo gis waxtaan la. Hmm. te ñoo ngi waxtaan ak ñëpp. Hmm. rien n'est impossible ak ñëpp est-ce que loolu également moo waraloon le choix du euh, président daal di yéex bu baax a baax. waaw ku nekk ak stratégie am président de la république loolu mooy stratégie te je pense que depuis 2012 mhm. stratégie am la ñuy topp mhm. et c'est des stratégies gagnantes loolu loola tax nag ñu ànd ak euh, ñu ñu xam ne mhm. lépp lu mu tëral comme stratégie rek ñun dañuy xam ne euh, loolu mooy stratégie yu baax yi donc yéexaay gi gaawaay gi ça importe peu l'essentiel est wóolu nañ un leader muy le président Macky Sall boobu léegi ñoo ngi liggéey ak moom te xam nañ ne aussi c'est un grand leader c'est un leadership euh, avéré donc looloo tax aujourd'hui bu tànnee dañuy xam ne rek kooku mooy suñu mbër bu ko defee ñu woo ñeneen ñëpp ñu ànd ci ñu ñu ñu mën a gagné élection yi en 2024 te te ñëpp mm-hmm. xam nañ tey bu ñu àndee mm-hmm. opposition bi xam nañ ne parce que ñoom liñ doon ñaan mooy ñu bañ a ànd affaire bi tas mais àndoo leen ba tey naa am nag kenn mënul wax ànd ba tey fu mu toll mm-hmm. mën naa mën mën naa am nag ba léegi euh, ànd aguñu am na quelques uns yoo xamante ne ba léegi ñoo ngi jàpp seen candidature mais gëm nañ ne coalition bi ni mu toll ak nu mu rëyee ak li mu làmbool comme ay parti politique ak ay organisation politique bu fekkente ne ñaar wala ñett ba léegi ñoo ciy résister cela veut dire que kat euh, choix bi c'est un bon choix cela veut dire que kat mm-hmm. ñun pare wuñu pour féewala ñun pare wuñu pour am une division cela veut dire que même ñi génn comme que ñett lañ ñeent lañ mën nañ leen a indiwaat ci langue gi ñu bëri dañu yaakaaroon ne coalition Benno Bokk Yaakaar day xar fukk ak juróom-benn. mais fu mu toll de. non fu toll nii jàpp naa ne. Mm. ñooñu génn sax dinañ ñëwaat te ba léegi démissionné gun de. Mm. à ce que je jàpp nga ni Mame Boye Diao def déclaration barki démb dina ñëwaat. jàpp naa ne dina ñëwaat. ci lan nga ko parce que nag la grande famille est là président de la république. mais moom il a ses ambitions yoo nga xamante ni bëggul benn yoon kenn daal di koy baare euh, tànn ngeen Amadou Ba mais moom jàpp na ni moom ngeen waroon a tànn aujourd'hui ba mu dem ba samp ndëndam itam est-ce que xam nga ku dem ko nangul choix ku dem ba présenter candidature am à la candidature la mm-hmm. coalition Benno Bokk mm-hmm. Yaakaar jàpp nga ne mën nga nekk président jàpp nga ne peut-être say ambition euh, toll na foo xamante ne buñ la tànnee da nekk président mm-hmm. ñun xam nañ loolu mais dès lors que tànn ci mbër yooyu ñeneen ñi dañu leen di ñaan ñu ànd hmm. ci tànneef bi nga xamante ne président de la république tànn na ko waaw. Hmm. ñu leen ci woo aussi bu baax a baax. Hmm. ba tey euh, bu xam nga xam nga nag ma ma la. xam nga en tant que responsable national des jeunes. j'avais très tôt alerté pour dire. que ñii ànd ak euh, candidat diw wala candidat diw yéen ñépp njabootu président Macky Sall ngeen. bu leen noonoo bu leen indi gegeer seen biir bu leen xeex seen biir parce képp ku ñu mënti di choisir ëllëg di nga soxla ña ca des c'est la situation qui se pose actuellement imaginez vous bu ñu fi nekkoon di xeex avant choix bi. Mhm. ñi faral kële ñi faral mais ñi nga xamante ñoo far ak Amadou Ba ñoom itamit xiiroo nañ fi un peu même oh. avant le choix. waaw mais loolu rëccu nañ ko et c'est maîtrisé parce que aujourd'hui loolu mooy waral ni tout simplement monsieur Sow ay coow mu ngi ci biir ci seen biir dañuy ànd nii rek pour rafetal mais dindi coow man Mm. politique mënoo ci dindi coow boo ci dindee coow xamal ne nekkatul politique mm. parti yi amul coow yëpp musuñ gagné dara coow dajee baax mais du doon ci seen profit surtout pour le candidat Amadou Ba bi nga xamante ni moom li ngeen tànn waaw mais mais mais déggoo li ma la wax mm. candidat Amadou Ba ñëpp xam na ne profil bu baax la un peur de d'effort ak benn campagne bu intense dem seeti ñëpp waxtaan ak ñëpp mais ben en 2024 nous allons gagner kenn mënul tey. wóolu ngeen seen candidat ba jàpp ne mën ngeen gagner. avec Amadou Ba oui dañuy gagner ci ñaari mbir laa ko teg. ci lan. ñaar ba ñetti mbir. Hmm. bi ci njëkk d'abord il est parrainé par le président de la république président Macky Sall. parce que hmm. président nag bi mu toogee ba léegi amul kenn ku ko fi gagné il reste le meilleur il reste euh, le le c'est-à-dire quelqu'un boo xamante ne li mu fi def kenn defu ko fi parce que il a su garder une coalition politique. depuis 2012 ba léegi il a su gagner toutes les élections qui se sont offertes à lui muy élection référendaire élection présidentielle deux fois élection locale mm. élection législative yooyu yëpp daf ko gagné musu cee perte benn même bu fekkente ne yi mujj xaw nañoo comme li ma wax sànq xaw nañoo faxastalu tuuti mais euh, c'est des c'est des guerres des divisions mais yooyu yëpp réglé woon nañ ko mais déjà kooku bu la ne am nga chance deuxièmement aussi mm. kooku mi la parrainé ne dafa am un bilan reluisant un bilan boo xamante ne du ndakaaru rek nga koy sentir en réalité partout dans le Sénégal nga koy sentir amul benn commune benn village bu sentirul bilan wu président Macky Sall mm. ça c'est mais ça c'est le bilan troisième ah. troisième point pour pour finir troisième point mooy Amadou Ba c'est c'est un bon profil quoi que l'on puisse dire mm. c'est vrai que ñeneen ñëpp am nañ profil bu baax mais Amadou Ba c'est bon profil c'est un bon profil ba léegi loolu ngeen jàpp oui c'est un bon profil d'accord te bu ñu ko jàppalee c'est sûr et certain man gëm naa ne mm. dañuy gagner de le premier tour premier tour la ñuy génn gagner d'accord euh, bu ñu jógee ci euh, Mame Boye Diao également bëgg naa ñu taxaw ci Abdoulaye euh, Daouda Diallo moom mi nga xamante ni mooy le président du CSE gis nañ également sorti bi nga xamante ni jot na koo def mu mel ni wax na ni dina bootu ci ginnaaw choix wu président Macky Sall di Ba mais mu mel ni mbir yi xaw na koo naqari tuuti ci ni mu ko waxee déjà ak ci ni nga xamante ni mooy doxalinam mu mel ni daf ko nangu malgré lui aujourd'hui mënees nañoo jàpp sax ni euh, Amadou Ba euh, candidature am day euh, ça ne fait pas l'unanimité ci li nga xamante ni mooy au sein du de la coalition. mais Mami Mami Mbengue dama la bëgg a xamal ne mm. unanimité amul fenn. mais ci seen biir waroon ngeen a d'accord ni moom mooy seen mbër ngeen daal di koy ngemb yéen ñëpp ensemble pour mu am victoire comme ni nga ko waxee au premier tour. diine bi sax unanimité unanimité amul mm. fenn déjà. Mm. diine bi sax amul unanimité donc mënuñu espérer en politique mu am unanimité c'est pas possible. mais l'essentiel c'est de rassembler c'est de c'est de regrouper toutes les forces mm-hmm. nécessaires toutes les forces possibles pour que bu ñu demee élection ñu mën a gagner perpétuer l'œuvre di président Macky Sall te gëm naa ne ci loolu lañ nekk dès lors que euh, Abdoulaye Daouda Diallo fekk si na Amadou Ba mm-hmm. pour deux raisons yi ma la wax premièrement digganteem ak président lay sàmm mm-hmm. parce que c'est des relations yoo xam nekkatul relation politique des relations qui dépassent la politique deuxièmement aussi bu wuta wàccee réew mi wala jox chance opposition bi nga xamante ne montré nañ dëgg-dëgg seeni limite parce que ci ci ay manipulation lañ nekk ci sos lañ nekk sosal nit ñu baax ñi ci ci ci insulte saaga kilifa diine yi ah, saaga nit ñu baax euh, ñi ci violence verbale lañ nekk ci violence physique même lañ nekk parce que gis nañ fi ay cocktail molotov rajo fi toj fi ay kër jàmbur lakk ay kër jàmbur toj fi ay oto Euh, bon. mais yéen sa euh, layoo leen dara il faut dire que mm. l'opposition amoon tey seen limites. donc mm. ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo quand même. Mm. ak li président liggéey yépp du boole loolu yépp jox ko ñi nga xamante ne ñooy ñooy cette opposition la. bi nga xamante ne wax dëgg yàlla gisuñu fa kenn koo xamante ne. Mm. attan na mim réew. Mm. peut-être euh, loolu yëpp mooy le candidat amadu Ba amul unanimité ci li nga xamante ni mooy seen biir d'accord mais euh, ki nga xamante ni itam ci yenn la bokkoon muy euh, Mimi Touré moom itam samp ndëndam fa seenee bokk ci élection yi bi ñu defee tànneef bi itam moom itam génn na wax ci xalaatam comme quoi que ni bu ñu tànnee Amadou Ba dina mel ni dañuy valider la troisième candidature du président Macky Sall naka nga décrypter mbir moom mais loolu gis-gisam la moom xam nga gémmiñ guy nàcc moom du wax jàmm mm. gis-gisam la euh, te opposant la donc euh, ci ci rôle am la nekk en réalité mënul wax lu baax ci ñun mm. génn na ci mais ci seen biir la génn de mais bien sûr génn na ci lu nekk rek day day fekk ne ci ay firnde yu leer la ko teg parce que ci seen biir la nekkoon fan la ko teg mm. wala yow yaay posé question du man fan la ko teg. <laughs> mais fi mu ko teg mooy euh, ci base tout simplement que ni euh, Amadou Ba dina bokk ci ñi nga xamante ni ñooy euh, comptable ci bilan bi nga xamante le président Macky Sall jot na ko def fii. mais ku ko éliroon moom moom itamit elle est comptable de moom di wax. waaw ba tey ndax si seen biir rek la bokkoon. elle a été grâce au président Macky Sall. Mm-hmm. elle a été non seulement euh, directrice di cabinet di président Macky Sall mm-hmm. opposant mm-hmm. parce que directoire la ñu amoon. moom moo nekkoon directrice du cabinet. di président Macky Sall opposant ñu ñëw mu nekk ministre de la justice président grâce au président ñu jóge foofu président nommé ko premier ministre muy la deuxième femme bi nekk premier ministre ci biim réew hmm. donc privilégié yëpp président ko ko jox ñu jóge foofu président def ko envoyé spécial du président de la république di post bu bees boo xam ne yàgguñu ko créé ñu jóge foofu président jox ko CESE conseil économique social et environnemental ñu jóge foofu président jiital ko li nga xamante ne mooy euh, notre euh, non notre coalition benn Bokk Yaakaar. Mm. mooy ci ci lég élection législative moom moo nekkoon tête de liste. mu liggéey ci liggéey bu am solo ngeen na am solo. Mm-hmm. loolu nangu ngeen ko. mais bien sûr mm-hmm. parce que boobu elle avec nous. kenn du naatable liggéey bi mu ci def mais dem ngeen ba si biir war mais kooku nag mm-hmm. kooku est-ce qu'elle est comptable du bilan du président Macky Sall wala déet bul fàtte mm. bi mu génneeg léegi motul un an motul un an de ci règne président Macky Sall ci 12 ans. waaw ba tey mais li mu waroon li mu waroon comme Amadou Ba. li mu wàcce woon ak le président peut-être que moom euh, doxal na ko mais bu ñu demee ba ci biir itam euh, jàpp na ne war am na ci seen diggante ndax la ñu waxoo woon euh, dafa ci benn yoon la nga xamante ni mooy kàddu yam ca yëkkati woon. non moom lenn rek moo ko tax a génn te ñëpp xam nañ ko aussi sénégalais yëpp xam nañ ko li mu nekkul président présidente l'assemblée l'assemblée nationale mhm. moom moo ko tax a génn. peut-être bu ko nekkoon du génn. même bu ñu defoon sax deuxième quinquennat du génn man gëm naa loolu mais bu fekkente ne moom dafa jàpp ne moom rek moo waroon nekk présidente assemblée nationale. waaw mais parce que du ko liggéey euh, n' mm-hmm. est pas dit que tête de liste bu nekk moom mooy nekk président assemblée nationale. Boun mm-hmm. Abdallah Dionne en 2017 c' était lui non. te de liste la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mm. mais tax koo nekk président assemblée nationale. mais boo waxee woon ak loolu le président ñu dem ma ci biir euh, changement daal di am euh, dernière minute ñu daal di tànn keneen loolu tamit euh, xaw na ko naqari bu baax. wa wa wa waa loolu loolu ci politique la nekk mais moom warul fixé wu kese ci présidence su assemblée nationale buñ ma defee mm. buñ ma defee présidente ma des buñ ma deful ma dem loolu mooy lan loolu bokkul ci ngor di mm. li ma la mën a xamal daal ni amadu baa nekkee comptable ci bilan président Macky Sall moom mu Touré noonu la nekkee comptable ci bilan président Macky Sall d'ailleurs sax moom lim ci occu occupé moo ëpp fuuf li ci Amadou Ba occupé en termes de responsabilité booy mm. xool donc ku ko fal moom itam il valide peut-être ce qu'il appel qu'elle appelle troisième mandat du président Macky Sall ça c'est mm. sûr mm. leneen li ma li ma mën a jàpp mooy nekk gis nga fii euh, dañuy dem campagne xool ku am programme bu gën bu ko defee ñu voteel ko hmm. campagne nag dina ñëw ñun non seulement dinañ won Sénégalais yi li nga xamante ne président de la République def na ko fi en matière d'infrastructure en matière de bilan qui est très bon très reluisant mais aussi dinañ leen proposer benn programme boo xamante ne dina ñëw bokk ak bilan bi nga xamante ne. maanaam euh, ba pare plan Sénégal émergent euh, képp képp koo uh-huh. xamante ne. Uh-huh. dafa bëgg a perpétuer continuer plan Sénégal émergent je mm. pense que sénégalais yi dina la bàyyi xel bu baax parce que bul fàtte ne mm. boo demee dans le monde rural plan Sénégal émergent à travers le PUDC programme d'urgence de développement communautaire mm. moo tax ñu def foofu ay forage yu bare bare bari man je suis du monde rural je suis dans le département de Linguère je sais de quoi je je, je parle président indi na fa ndox un peu partout parce que éleveurs yi éleveurs yaa fa ëpp doole c'est euh, benn territoire la boo xamante ne élevage moo fa moo fa moo fa ëpp doole mais élevage nag boo amee ndox daanaka am na lëpp lépp au delà hmm. de des forages qu'il a qu'il a mis là-bas travers le PUDC mais président Macky Sall dafa defar ay piste de production yu bare bare xar na àll bi yépp dafa ay yoon c'est important parce que yoon nag mooy mooy dund hmm. en réalité bu ndox jàllee hmm. euh, leneen li mooy ne que fii ci Ndakaaru à travers euh, ces autoponts là 18 autoponts à travers le Sénégal au total xanaa xamoo ne autopont bi nekk diggante Sénégal Gambie rek doyoon na bilan. Hmm. boobu kese n'oubliez pas qu'on est nekk à l'intérieur on est comme ni nga ko ni nga dama eggali la <laughs> allez-y on est resté des années depuis comme ni nga ko waxee waa Linguère ñoom itam comme fi nga jógee ah. ñoom itam ñu ngi souffrir bu baax a baax duñu wax comme li nga wax léegi ni bilan bi mën nañu jàpp ni tout est rose fu mu toll di au Sénégal avant may répondre loolu damay eggali. Mhm. li ma bëgg a wax. allez-y je vous gis nga diggante mhm. diggante Sénégal ak Gambie pont bi fa ne mais yaa yaa ngi fa doon dem avant président di fa def pont bi. Mhm. yaa ngi fa doon dem. si y a un changement. mais imaginez vous difficulté yi fa amoon te doléance bu yàgg la mais président dafa ñëw wone ci aw xaran xarañteef moom ak président Gambie ñu lëkkaloo defar pont bi vite fait. ñu defar ko. la ñi ñii dem Casamance ñii dem Gambie wala ñii dem foo xamante ne si eh, après ce pont là mais mais mais aujourd'hui xam nañ utilité xam nañ njariñ pont boobu jaar naa fa mm. jaaraat fa mm. avant ñu fay def pont bi jaar naa fa jaaraat fa mais je sais ce dont je vous parle pont la bu ama am solo ci économie wu Sénégal parce que nag Sénégal benn bopp la mm. kenn mënu ko xar ñaar Sénégal benn teritoire la bu fekkente ne il faut nga jaar ci beneen réew doog a dem ci ci ci beneen parti wu Sénégal bu dee am na ay difficulté loolu daf ñuy indil ay ay ay jafe-jafe mais président Macky Sall moo dindi loolu yëpp difficulté yooyu yëpp. mu defal ñu ci pont moo tax ñu tànn ko. pour que économie ci boppam mën a dox. ñu tànn ko donc loolu moom responsabilité am la lu mu war a def la parce que loolu la waxta wax waroo ak euh, askan wi d' accord léegi bu ñu euh, ñëwaatee ci li nga xamante ni mooy euh, amadu Ba aujourd'hui on voit les yi nga xamante ni jot nañu fësal seen bopp ni ñoom am nañu mbébét ci réew mi bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñooy laaj réew mi. ñu ngi commencé di def ay tournée ak liggéey yu am solo ci biir euh, réew mi ak biti réew quoi euh, Amadou Ba justement moom dooragul liggéey bi jëm ci euh, li nga xamante ni mooy élection yi wala dafa wóolu boppam ba waral na moom itam mu nekk xaw a yaafus tuuti ci mbir mi tuuti waaw mami dégguñu ko mu def déclaration de candidature wala mu génn wax ne lii laa fa def ci réew mi et cetera et cetera déjà campagne commencé gul hmm. donc il a tout le temps parrainage waaw déglu rek parrainage commencé gul hmm. il a tout le temps déjà ku nekk aussi ak stratégie am loolu mën ngeen ñu ko nangul quand même. Hmm. suñuy stratégie mooy ñu bañ a door tey bañ a door. stratégie mbaa du bootu ci programme mu euh, président Macky Sall. ça non seulement boo bootoo ci programme président Macky wala ci bilan président Macky Sall am nga toutes les chances. pour hmm. jàll mais aussi dina ci dolli loo xam ne style am la en tant que homme politique mais leneen li aussi mooy ne que bientôt. Hmm. di ngeen ñu gis incha allah sur le terrain. ku nekk dafa am stratégie mais moom dafa mel ni farluwul ci mbir mi de depuis loolu day hmm. bàyyi nit ñi di ko waxal rek moom génnul benn yoon di wax ci non responsable bu toll ne moom toog laaj réew mi hmm. moom kay laaju lañ koo laajal laaj réew mi ndax kenn dégg ko mu laaj am ambition présidentielle yàlla def président tànn ko nga ne ko far farluwu ci ba léegi dégguñu Amadou Ba fu mu toogee farlu ah mais déggu ko te incha di ngeen ñu gis les hmm. jours à venir te rek il Ah, à Tivaouane et En Pire. tant que Premier ministre, pas en tant que candidat. Oui, mais au moins, au moins vous, vous verrez l'homme. di ngeen gis euh, ki nga xamante ne mooy posture yi bokkul faut que ñu def différence bi parce que euh, mënul nekk Premier ministre ba pare euh, di teew foofu en tant que candidat mënul nekk. là bu fekkee ne day def ay déplacement da nga bëgg a wax un président qui se représente mënul teew en tant que président et en tant que candidat. c'est pas ce que j'ai dit dama ne tout simplement la personne. mais imaginez qu'il est en train de faire actuellement. dañu jàpp ne c'est le premier ministre moom moo nekk di génn. mais le candidat en tant que tel koo xamante ni moo jiite seen coalition Benno Bokk Yaakaar moom laa wax exactement. mais bu leen yàkkamti di ngeen am di ngeen tàllal seen micro yi. bu soobee yàlla jox askan wi wala parce que dañuy sentir ni peut-être dafa nar a langaamu ci ginnaaw bilan wu président Macky Sall pour campagne ko et cetera. bu ci langaamoo il n'aura pas tort. Hmm. mais incha allah bu dee terrain rek di ngeen ñu gis sur le terrain incha allah. Hmm. te gëm nañ ne bu ñu commencé campagne bi di ngeen gis ne les sénégalais sont avec le président Macky Sall. sont hmm. avec le choix du président Macky Sall incha allah dina wàcc ci terrain bi loolu. Euh, yàggatul incha allah. Hmm. Hmm. d'accord peut-être ñu xaar ko très bientôt le candidat Amadou Ba sur le terrain yéen a ngi euh, teewlu seen émission euh, comme politique ñi ki tey ñu dalal Moussa Sow mi nga xamante ni mooy njiital COJER national bokk ci Alliance pour la République ñuy fàttali bu baax a baax ni yéen a ñuy teewlu fii ci leeral TV alors ñu wéyandi waxtaan wi ba tey monsieur Sow comme ni ma ko waxee sànq également bëgg naa ñu waxtaanee démocratie au Sénégal parce que ñu ci bëri dañ ci am njàkkare à chaque fois. Euh, comme quoi que ni depuis le président Macky bi mu fi nekkee jàpp tëj yi bëri na bu baax a baax ba ci ba ci ay euh, collectif yoo xamante ni dañuy xeex loolu sax euh, jot naa juddu fii ci Sénégal lu ci mel ni waa COLIDEP ñoo ñi nga xamante ni ñooy xeexal les détenus yi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee détenus politique bëri nañu lool jamono ji ci biir kaso bi lu ci mel ni itam tëj bi ñu tëj le leader du PASTEF Ousmane Sonko ak dissolution bi nga xamante ni am na également ci parti loolu yëpp ñu jàpp ne day nasaxal li nga xamante ni mooy démocratie aujourd'hui yow jàppoon ni euh, côté googu échoué ngeen ci un peu. Mamy Mbengue qu'appelez-vous détenu politique. mooy ñi nga xamante ni peut-être dañoo génn wax seen xalaat ci réew mi yóbbu leen ci kaso bi. loolu du détenu politique ak ñi nga xamante ni dañoo am lu leen naqari génn di marché yóbbu leen ci kaso bi. bu doon loolu la ñëpp a ngi kaso ba hmm. parce que président Macky Sall amul luñ ko fi yàqul 2012 ba léegi ko fi waxul te pourtant tëjul kenn mais ñi nga xamante ne jàpp nañ leen. daa fekk faroo ci moom dafa ne. Hmm. dafa woro ak fonctionnement wu réew mi. mais am na loo naqari génn manifester loolu euh, waroo la. yamuñu ci loolu. Mm-hmm. bu doon loolu kenn du leen tëj parce que bëri na fi ay euh, ay mouvement mm-hmm. yi génn di ñaxtu te kenn jàpp leen kenn tëju leen. mais imaginez vous xam nga les gens de mille xaw ma ñaata xaw ma huit cent détenus et cetera. Mm-hmm. mais xam nga kaso Sénégal yëpp boo boolee détenus yi c' est trente deux mille trente deux mille mais xanaa ñoom. 30 peut-être boo ci génne 8000 yi ñuy wax détenu et cetera et cetera mais xanaa ñoom kon ñeneen ñi du ñu ay sénégalais ñoom ñii rek la ñuy waxal seen ñii alors que am na lu tax am na lu tax ñu téye leen yóbbu leen kaso. Hmm. tooguñu seen kër yi jàpp seen jàmbur wala liberté d'expression boobu dafa am fu muy yam également monsieur Sow dafa am fu muy yam hmm. parce que bul fàtte ne sa euh, anarchie baaxul cim réew désordre baaxul cim réew liñ fi gis tout récemment nekkul politique haine la liñ fi gis tout récemment du politique euh, banditisme la liñ fi gis tout récemment buñ ko bàyyee mu jàll xoolal face de l'état la ñàkk état ci boppam moo dul existé ti ay cocktail Molotov ñu koy tojee ay oto di ko lakkee ay oto gis ngeen bus bi keroog yàggul dara ay nit dee ci loru ci gis ngeen kër kilifa yi ñu fi doon lakk ngeen defe ne loolu yoon la ñooñu bu ñu leen jàppul. mais est-ce la solution pour ça. mais c'est la solution parce que la justice est là pour euh, jouer son rôle bu ñu amul. justice mais dissolution parti passif également naka ngeen ko mën a tuddee. mais dëgg du nasaxal benn euh, kenn koo xamante ni peut-être mënoon a nekk benn entrave ci euh, li nga xamante ni mooy seen bëgg-bëgg. parti un parti politique. Mm. xam nga lan mooy rôle parti politique wala boog liy tax juddu parti politique c'est la conquête du pacifiquement. pacifiquement hmm. ak nga exercer pouvoir mais bu fekkente ne yow yaa ngi ci violence respecté woo dara li taxoon nga nga créer parti boobu respecté woo dara li war a nekk sa diggante en tant que chef de parti wala en tant que parti li war a nekk sa diggante ak état wala diggante sa à dire yi li nga signé respecté woo ci dara mais yow bu ñu dissoudre sa parti waroo wax dara c'est ce qui se passe avec Pastef Mm. on a vu des gens violents des gens qui appellent à l'insurrection mais dama la ki nga xamante ne moo leen jiite woon et puis bul wax ex bul wax Pastef neel ex Pastef parce que amatul ci texte yi de ex Pastef amatul le Pastef n'existe amatul mm. quelqu'un booy taxaw di wootee à l'insurrection ça c'est condamnable xam nga kii mënoon nañ ko jàpp bu yàgg mais état Ah, ak souplesse su ki nga xamante ne peut-être moo fi ne muy le président Macky Sall bari yërmande lool ak euh, li nga xamante ne mooy euh, mooy li lal suñu réew masla bi moo waral depuis lool kenn jàpp ko mais kii waroon nañ ko jàpp bu yàgg yàgg. yow ah, nooy gisee parce que da ngeen jàpp ni moom nooy gisee quelqu'un ah. bu taxaw ne. cooki fin bu ma ñëwee Dakar jeunesse bi yëpp na ma rejoindre Dakar. ñu tàggoo ak. xoxata ñu tàggoo ak Macky dina ma fàtt wala ma faat ko imagine ces discours là te bu ma demee naa ko def comme ni ñu def Samuel do yow xam nga ni ñu def Samuel do le président libérien booba hmm. dañ ko jàpp daggate ko place publique lañ ko teg daggate ko ba pare jël bopp bi di fubal di paasante bopp bi ñëpp di gis image yi un peu partout dans le monde hmm. mais est-ce que dissolution loolu est-ce que Sénégal que dissoudre Pastef loolu tamit solution la woon ci mbir mi. mais mais pourquoi pas parce que bu fekkente ne jaaroo yoon dañ lay delloo ci yoon bi et puis le monde sa marche. Hmm. c'est comme ça. mais ñoom dinañ ñëwaat ak plan B. Pastef va revenir plan B o plan C ñoom ñoo xam seen droit la mais seen ne sera hmm. pas avec Pastef de toute façon. Hmm. parce que Pastef existé tul amatul. li ma la wax daal mën nañ ci d'accord loo xamante ne si état. sénégalais yëpp la fi nekkal état dafee nekk pour mettre de l'ordre bu fekkente ne am na ñoo xam ne dañuy ñëw jéggi yoon mais dañ leen di tegaat ci raay bi hmm. et le Sénégal continue sa mue c'est ça la euh, loolu bu amul bu hmm. yàggee anarchie la ñuy am hmm. bu yàggee bu amee bu bu bu buñ ko arrêté wul désordre moo fi am bu yàggee ñu am état dootuñu am nation donc loolu il fallait qu'on l'arrête mm. et euh, tout à l'heure euh, waxoon nañ ci euh, visite bi nga xamante ne le président Macky jamono ji mu ngi koy amal fële ca États-Unis ci ndaje mu am solo boobee fa am mais gis nañ mouvementé bi nga xamante ni jot na am ci mbir mi ndax ni ñu ko tertoo ci wet bi gis nañ fa les nga xamante ni ñoom la àndal. ñëw nañ daal di koy teeru tatagal ko mais de l'autre côté également li ñu gën a bàyyi xel mooy euh, xeetu euh, euh, teeru bi nga xamante ni moodu moodu yi teeru nañ ko ko foofu ànd ak ay baat yoo xamante ni xaw naa neexul a dégg ci ay nopp benn yoon mu mel ni le président Macky également même à l'extérieur mu ngi jàkkaarloo ak des sénégalais yoo xamante ni ils son frustrés ci li nga xamante ni mooy gestion bi am ci biir réew mi waaw li dañ koy ñaawlu d'abord li xew New York mm-hmm. dañ koy ñaawlu mais aussi je me dis que c'est de bonne guerre ñoom politique la def peut-être gis nañ ne occasion la ñu génn woon monde bi wala woon àdduna bi ne wala lu neex wax ko ci président Macky peut-être ñoom moyen de pression lañ ko jàppee mais booy xool wax dëgg yàlla journalistes yi tamit souvent je ne dis pas tous les journalistes ils ne parlent jamais jamais des trains qui on a de <laughs> train yi <laughs> arrive ah. des trains qui arrivent à l'heure moom duñ ci wax mais nangul nañ leen ko mais aussi nekk ci ginnaaw la ñu nangul nañ leen ko bu baax a baax mais aussi bu ñu mm-hmm. waxee lee mm-hmm. war nañ wax lee parce que mobilisation la contre mobilisation te jàpp naa ne mobilisation bi ñu amal pour accueillir président de la république mm-hmm. tatagal ko dalal ko ci New York moo ëpp fuuf moo gën a bëri nit moo gën a xumb moo gën a rafet que mobilisation opposant yi ñu fa gis te yow booy xool ñi nga xamante ne dañoo dem. daan nañu ko fa def ñaaw na de ba ñu mujjee renforcer sa sécurité ci hôtel bi nga xamante ne moom la. non non xam nga xam nga ce qui se mooy. xam nga nit ñi moo tax ñoom ay manipulateurs lañ c'est des champions en manipulation. Hmm. c'est des champions. bu fekkente ne moo mel ne tey président jóge ci ci ci beneen réew ñëw suñu réew wàcc King Fahd Palace manifestants yi nekk place de la nation di manifester. léegi nag ñu jël image yële ak image yi ñu taqale ko hmm. ne woy da nga jàpp ni manipulation la non c'est des manipulations parce que fii fii opposants yi amal seeni manifestation ak fi président de la république nekk sore na ak a sore. d'accord mais au-delà de ça on a fay dem dem ci ambassade fay dem mais nit du dem. boo fa ñëwee nga naan da ngay saboté xaru rek. mais avant ça on a vu des Sénégalais yoo xamante ñoo nekk foofu dem ci ambassade yi ñoom itam di saccagé ak yu ni mel am foofu mu mel ni ñoom itam ñu ngi yëg bu baax a baax li xew ci biir réew mi. waa déggu li ma la wax ñoom c'est des gens très violents. Hmm. parce que bi 1960 ba léegi mosuñu fi dégg consulat bi ñu lakk mosuñu fi dégg ambassade. boo xamante dañ ko vandaliser l'avènement de ces néopoliticiens lag won nañ ñu ko lakk hmm. nañ fi ay ay vandaliser nañ fi ay consulat consulat yoo xamante ne ay kayitu juddu ñi fa ne ñoo ci ne consulat yoo xamante ne ñi ko lakk seen kayit a ngi fa kayitu ñeneen a ngi fa hmm. mais ce que loolu réellement patriote ku bëgg réewam dina ko def li ñu gis tout récemment ce n'est pas de la politique haine la mais désordre notoire la reewande la c'est du banditisme te loolu wax dëgg yàlla ñooñu est-ce que danañ leen dénk hmm. lu gën a ndaw ci état commune sax waruñu leen ko dénk en réalité hmm. parce que communes yi c'est des démembrements de l'état waruñu leen sax dénk commune ba leen di dénk ab état hmm. parce que ñoom dañoo ñëw pour yàq ñëwuñu pour defar président Macky Sall nag dafa ñëw pour defar te depuis 2012 mën nañu remarquer mën nañu xool lépp li mu fi defar yàqu fi dara te booy xool président le comportement est exemplaire musul yëkkati lu ñaaw teg ko ci deru nit hmm. musu fi jóg di di di def naka su dul su noonu euh, contre ñeneen le président Macky Sall c'est un exemple de leader hmm. boo xam ne war nañ ci roy euh, contrairement à ces ah. gens-là hmm. nag man jàpp ma ne ñoo xamante ne dëgg yàlla am nañ seen liggéey bu baax États-Unis di daan seen doole New York ñoom dinañ génn naan dañuy manifester mais peut-être bu fekkente ne président lañ bëgg a jëlee wala ku ànd ak président nañ xaar ba élection loolu mooy mm. démocratie en mm. réalité mm. mais du ci violence du ci saagante du ci xaste li ñu gis aussi ñoom fa la ñu toll ñàkk seen liggéey peut-être amatuñu fu ñu dëkk euh, am ay jafe-jafe ñu jàpp ne peut-être nguuru président Macky Sall wala nguuru Sénégal ñoo leen ko teg sëf ko yépp nguuru Sénégal wala président de la République président tegu leen ko ah, nguuru Sénégal tegu leen ko ñoom bu fekkente ne amatuñu liggéey wala ay taxawaalukat lañ. mais ça mais ba tey ay sénégalais lañ mere Sénégal. même ak seen situation lu mu mën ci demee euh, il reste des sénégalais tout de même. monsieur Sow te l'image l'image n'est pas n'est pas du tout. Mm. Euh, bien à voir. Mm. image dafa ñaaw. toll fële ci bitim réew nga war a liggéey nga war a yónnee dëkk ba nga nekk foofu di live di mm. saaga nit ñi. di xas nit ñi. Mm. fii kilifa mm. diine tey nga saaga kële. gannaaw suba kële. Ah, c'est moins de xoj mais bëgg naa euh, euh, dugal benn question avant ñuy dem euh, COJER bi nga xamante ni moom nga jiite actuellement naka la nekk di liggéeyee pour gën a jëmmal wala gën a fësal ki nga xamante ni mooy seen candidat ci prochaine élection yi di Amadou Ba. waaw merci beaucoup am nga COJER moom dans tous les partis politiques d'ailleurs. Mm. c'est la jeunesse qui fait bouger les choses allah au de. Euh, de la grande coalition présidentielle wala de notre parti Alliance pour la République aussi on fera booster les choses vraiment dinañ liggéey liggéey bu am am solo un peu partout xam nga COJER nag nekkul benn structure bu ndaw. Mm-hmm. c'est une structure qui est représentée partout dans les 46 départements partout dans tout dans les communes. donc bu ñu jógee rek ñëpp dinañ xam ne jóg nañ danañ amal ay mobilisation yu yaatu yaatu ay manifestation yoo xamante ne ça va véritablement renforcer. Euh, le candidat choisi ñu jàppale ko bu baax. Mm-hmm. et puis euh, euh, au niveau de parrainage yaa ngi ñëw motatul 28 28 septembre moo nekk le début de parrainage loolu aussi jeunes yi ñoo ciy joué le te déterminant loolu yëpp ñoo ngi ciy liggéey bu ko defee. Mm-hmm. suñu candidat incha allah en 2024 mu jël réew mi. Mm. te loolu la ñuy ñaan. incha allah monsieur Sow maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax malheureusement euh, waxtu wi moo ñu daal di xoj mais waxtaan wi amoon na solo bu baax a baax euh, di la jaajëfal ci euh, waxtaan wi am na pertinence bu baax a baax di la remercier. Mm-hmm. jërëjëf man maa lay jaajëfal man maa lay remercier. Mm. maa ngi nuyu également ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñu ngi doon bàyyi xel. Mm. di nuyu toute la jeunesse de la Cogère. Euh, di nuyu aussi euh, ñi ma fekk ci kër gi yëpp. Mm. di leen jaajëfal ci dalal bi ngeen ma dalal tey. Mm-hmm. allahumma salli ala sayyidina muhammad. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Moussa Sow mi nga xamante ni mooy coordonnateur euh, COJER national nekk ab bànqaas ci alliance pour la république moom la ñu dalaloon tey ci comme politique di ko jaajëfalaat bu baax a baax yéen itam cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi nga xamante ni à chaque fois yéenay seetaan leexal TV di leen jaajëfal bu baax baax di leen jox rendez-vous ci comme politique mercredi prochain incha allah jaa ngeen jëf.